yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel dal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala Paypal da ngay def 3W point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan. waaw salaamaaleykum mbokk internet ya ñu ngi leen ziar bu a baax di gën fi nga xamante moom mooy koñu Laurent Ndiago Ndiago Orbia gars gis ngeen Baye Fall yi fii la ñuy faraan nag xam naa tey tey boo xam naa ne dara du yomb quoi mais dañuy jël Baye Fall yi la ñuy préparé combat suba parce ma inoo na la yor essay nii bu Siteu na ay asiko la yor xam naa ne nag Laurent moom seet si Baye Fall yi wax ma ñoom comment faire nan la ñuy préparé combat suba bi quoi maa ngi soog benn Baye Fall Baye Fall mais ziar naa leen yéen gars bu Siteu yooyu mu xam ne yoonu làmb xaalis. moo loolu noonu bu Siteu bi dañ koy jooy benn jooy rek. mais yéen combien de jours yéen a ngi fanaan fii daa mel ni combat bi nag tamit am ngeen fu ngeen ko teg ah. loolu loolu loolu na borom daaru loolaa lor di el jéng bu dof bi. bu na la yeewee benn jooy lañ lay jooy. benn jooy yéemoo ñu bu bu nee yoonu làmb yow di xam ne yow sa yoon neeku si yow buñ la yee wóor na borom jaaro. bu nee am na. mais bu dafa ne am na moom neuf combats Laurent benn combat kon nee na moom kooku jaaxalu ko parce que moom li mu def si làmb Laurent def ko si ko. ñun loolu jaaxaluñu. barki Serigne Touba. ay yaxu daaw lañ bu si dee ñëpp ay yaxu daaw lañ lënd. da bëgg wax ne ki nga xamante ni moom la mujjee daan nii kon bu mi ngi soog a bëre bu tax ñu naan làmb. déedéet waay bu. kon nag Bou Siteu am na problème. mooy premier làmb moom muy bëree bu tax ñu naan làmb. mais yéen naka ngeen di préparé combat bi actuellement nii. actuellement nii pare di ñaan yàlla sóoraal ñu rek ba bis mais est-ce que dinañ a Laurent suba si ambiance. Laurent lépp lay indi suba. a day ambiance day bëre day xeex. waaw mais Bou Siteu na ko laalee. cey bu laalee. cey ay boo ko laalee. bëgg laale loolu. tey bu laale. ay boo laale. Ah. boo laale di nga laal laalaake. laal laalaake. xam nga ñun suñu avance xiiru fas la ku ko weddi laajal xuuru fas yi wala. mais booy la mooy xuuru fas. xuuru fas xuuru fas bële ñun suñu avance xuuru fas la. bilaay laaj ñu buur buur dogul ay neuf comment loolu tiitaluñu de njaaw kase fii ñaari njaaw fi am njaaw or bi ak njaaw jamaa bi bilaay ñaari njaaw kase buur dogul. atumadoo li ngeen yaay tamam ay asikoy ñun suñu loxo lañ yor ak yëngal kase mais sax xam ngeen ne suba caatu yaraax mooy bëre ak bulldozer Ada Fass mooy ak Jokel est-ce que xam ngeen ne bu ngeen yéexee stade bi day fees. waaye xalaat ñaax la. jërëjëf jërëjëf soriwul dañuy dox dem. loolu loolu policier duñ tijji huit heures bu ñu demee bu ñu toog dañuy jug ñu dañuy toog force. lay billaay wallaay suba la ñu comprendre soo dégg tuguj tuguj tagaj tugaare billaay wallaay kon daal suba bi ngeen daareel Laurent Bou Siteu kan ngeen di laaj léegi après ñun Laurent lañ indi ñun ku ñu laal ñu door na nga may fere ñun Laurent rek lañ jëm toj maare kan yow yaay kan yow man la kende kende foo dëkk band bi man dama ni dof la xanaa xaritu Laurent bokk Laurent Laurent moom ñoo bokk maam maam Laurent caat la man maay taw. yow yow ñaaraat nga am yow. man am na huit ans. Ah, de. Ah, am na deux ans suba dina ñëw suba bañ a dem stade. Sambaare mu naan tas tous. ah moo ko téléspectateur yaa ngi gis ndeysaan nee jàmm gën moom saa yoo ñëwee da gis loo xamante ni da nga fiy bëgg di ñëwaat quoi mais Baye Fall bi suba nag da ngeen jëm si combat. combat boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy xaar combat boo xam ne àddina mu ngi koy xaar actuellement ni Laurent si lan la nekk. Laurent mi ngi si jàmm mi ngi si jàmm salaam di préparer làmbam comme ni ñu ko doon defee rek. pare na fépp pare na fépp. kon instant daal maanaam suba bu arbitre sifflé bañ tëj barrière yi lan ngeen di yóbbante bu Siteu. xam na da ngay jaawale gone dañuy jaawale Laurent ñii ñi naan comédien la ñii di naan mbër la waaye suba bu soobee sunu borom dañu xam ne mbër la wala comédien la. ba suba jàmm rek ba suba lan la ñuy xaar comme lépp la ñuy xaar ambiance lépp la ñuy xaar bëree xeex lépp bak sëñ Bamba. bu Siteu nee na suba lora bu arbitre bi sifflé du ñëw rek jàpp ko daan day yomb nee na foog mu xeex ak moom wan ko nan la mën nakam yaa ngi si ñii si làmb bu tasee da nga ñëw fii ñu confirmer. incha allah kon suba amul wax xalaat ñaaxal après mu sëñ Bamba. billaahi. mais sëñ bi ñu lay naas gaan bi la. bu baax sax. daa mel da ngaa tiit. non non dayoo sax. gaa gaa calmé billaahi noonu la. mais naka billaahi mais di wax waa waaye moom. Laurent moom moog bu ñooy nekk si digg bi mais booy moom li ñuy nekk si TikTok yi mbelele bu subaa ñu dajee moom nañ ko confirmer rek. mais boo Siteu nee na Laurent moom TikTok moo ko boole ak moom mais du làmb. loolu loolu waxul làmb la rek war na yàlla mais bu Siteu boo ko booy bi jàppee dinañ la def lu metti war na yàlla voilà. mais suba est-ce xaar ambiance ndax ko xam njaago or bi xam ne dafa mën lu muy def suba nan lañ leen di xaaree si mobilisation ak ambiance. gisoo booy yi nii instant boo demee buntu gaale sa waay doo fa fekk booy nii war na yàlla ñu jàmm nga lañ dëkk ñun suñu doomu réew dañ koy taxaw. daal suba daal na nañ xaar stade bi fees dell ba kenn du fu mu toog. comme magam rek fu mu jaar foofu lay jaar rek ñun moom mooy loolu booy bu ndaw bu siy bëree sax day moo ñu may loolu quoi naa la Cheikh. maa ngi lay loo nekk. lépp jàmm. mais man gara xam nga laa lay laaj la naan yéen Bou Siteu dafa naan ay doom ndax parce que daa am ku ko wax fi foog ma laaj la man maa ngi nii Fouta laa ndax Laurent. amul leneen lu dul loolu. billa ndax Laurent suba bu si daan na problème. combat bi du yomb. waa Fouta luñ la ala boore boore fii ala boore min joomi tan min dari nari. loolu mooy lan. loolu mooy la booy ay gole lañ. Laurent. barki sëñ Bam lu leer laa lay tegal ragal yab yàlla la. yàlla la waa Fouta lan lañ la ngi ndaale ko Laurent. déggu ma. lan lañ la ngi ndaale ko Laurent lu bëri. comme nan bàyyil ba suba rek. mystique da ngay gis lépp am na téere bu ñu la jox bu ñu war a takk si tànk anam foo ko denc. déggoo ma de loo xalaat si bopp bi leen ko gis foofu noonu. xaar lépp am ji rek. waaw ba jour ji lépp ambiance bëree xeex lépp. bilaay. nii nii dañuy wax nii nii dañuy wax nii. xam nga lala la kii bu si la suñ ko dee dañ ko wane wan kees kees espérance yi pas du terreau pas. mooy loolu mooy la. loolu mooy ba suba. non mën nga ma ko wax soo waxaat ko waxaat ko. ¿Quién es Ferrari? Ti pasi terlupa. Pasi terlupa. non non baasu loolu baasu non non foog ngeen leeral ma wax ma loolu wax ma loolu lan su ma la ko waxee da ngay waaru de barki yàlla su ma la waxee da ngay waaru ma wax su ma waxee du baax de du baax kon bàyyi xamu ko. xamu ko non xamu ko non non. du mbër toogal sareet. du mbër toogal sareet la. la naan ah bu bàjjen la naan bàjjen. dafay naan ba biir bi ko taa. bu du mbër toogal sareet. ak bu bu ku bii. papa. joxal booy bi gan joxal booy bi. pour si la def la. ziar naa la. wax quoi. non non non moo tax ah, tiit. tiit musuma tiit. Ino. Eh, Ino ziar naa la yow yaa may cadrel nag. dellu ziar waaw. loo nekk rek. yow moom mel ni yow instant yii nii pare ngeen de. waaw yow bu yàgg pare nañ bu yàgg. ah nice waaw pare nañ ak côté mobilisation. lépp loo rek. dinañ ñëw bu soobee. suba combat bi mën nañ ko xaar si ay minutes yu ndaw wala day yàgg wala. yàlla nañ yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal. mais Laurent keroog dafa ñëw bëre Boy Plateau. combat boo xam ne combat bu gaaw la. te bu Siteu ku ko xam xam ni mbër la bu dëgg rek wax jot joxe mais suba est-ce que pare ngeen yéen pour arbitre siffler Laurent dox si kaw bu Siteu. bu bu subaa lu mu def daanu. déet waay muy jooy day daanu muy ree day daanu muy xaxataa day daanu. suba day daanu force. ah bu dee am na lu ma wax. loola la wax. nee na ma suba. ay mbokkam dina ñëw si géew bi tam ma dëpp. ah waaw moom dëmm la ñu ne ñun xamaay la lañ ñu ne ay nooxoor lañ dañuy lekk dëmm te bu suwaa la kay xam suba bu suwaa lay xam ñu ay nooxoor lañ mais dégg naa demoon ngeen Casamance demuñu fenn bu bu bu si la nekkoon diis bi suñ diis la benn jooy lañ koy jooy eh, bu buñ la yeewee nga xam lépp dëgg la. mais mais mais xam nga xam nga xam nga dafa am benn affaire bu Bou Siteu waxoon dama bëgg leen laaj la ko ba xam Bou Siteu ne dafa gën loo naan nekk fi nga xamante ne moom mooy Casamance def ay tànku neen mais Laurent lan la doon def Casamance. ak gis naa ko sëñ Abdou Karim tamit yéen. daa tiit rek Laurent demul benn Casamance. demul fa lañ demoon si dini si dini la newoon garab yi wër ko noonu ñuy filmer mu yaakaar ne Casamance bu daa jar dem Casamance bu desul hôpital la mu dul nit. te bu suwaa dina xam ne yomb dibiteri yomb na. yomb romb dibiteri yomb na mais laqaloo jafe bu suwaa la kay xam. mën ngaa romb xet bi xeeñ la ngay tàqamtiku te doo laq. suba la koy xam. yéen seen wax yi fu ngeen ko jëlee. fu ngeen ko jëlee ñu ngi si digg ñaanga deng bi lañ dëkk. jamus bi. ak ñaanga deng bi amul soose. kaani bu saf sap nga siy def. sinon doo fi dëkk. kaani bu saf sap. waaye yow sap. kaani lan lañ koy jiwee. lan lañ koy jiwee. da ngay dem feneen nga wut kaani sadam du xamal nga kaani sadam bii moo gën a saf bu ñuy soosee si digg ñaanga deng bi. déedéet waay tous. kon daal suba dara du yomb. yow bu naree yomb ñu ñu toog ba ñu dem stade. barke alxuraani karim. mais suba ban heure ngeen suba. waaye huit rek. njaalo sëñ Fall bi moo waaye. pare nañ. kon daal suba dara du yomb. daan buusi de. xëy si guddi gi ñu dem Touba. màggale bu soobee suñ borom. loolu si kattan suñu. njaalo bi yéen a màggal. ma bañ na ko ba dañoo ne njaalo sëñ Fall. kon xam nga dañuy daan buusi de. dem màggale bu soobee suñu borom bu soobee suñu Fall. mais man xam nga lu ma jaaxal. lan mooy relation Ndiago ak sëñ Fallou bi parce que bu ñëpp xam nañ ne Laurent bu waxee ne barki maam Fallou maam Fallou xanaa dafa am lu ko dénk moom Laurent. waaw Laurent laa si jàmm gën moom lu ko si digg ñàngatang bi di ànd ak ay Baye Fall Laurent yi muy àndal ay Baye Fall lañ ñëpp ay jullit lañ mu fekk suñ si loolu bëgg suñu si kon loolu noonu force moom da koy doon te da kaa bëgg de sans ñun sans dara kooku mu nekk xale sax boo waxee mu la man sëñ Fallou mooy sama sëriñ. kon kooku daa bëgg sa yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan gala bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Thiatou Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel dal di dugal nag sa code secret diga jot benn SMS bu la yónnee yónnee sa code ma lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3W point seen affiche point comme nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan